aca jërë ngeen jëf mbokki internet yi seetaan seen seen bi suñu xalaat TV ginnaaw bi leen nuyoo ziar leen bu baax ba am mbégte si saa su nekk di leen toppal comme ni leen di toppalee lamb rek tey nag ñu ngi fii ci bunt mi naa ñoo dalal euh, Malo Rouge Bordeaux numéro 2 war a day teg Alaya ci journée la 15 mai 2024 journée jeunesse production waaye mbër dañ koy bàyyi mu nuyu ak ñu koy seetaan Modou nuyu na la. waaw kenn waaw maa lay fay ma sant yàlla jël seen bi sant sama ñaari waajur di sant ñëpp maa ngi maa sant gars yi toog yëpp xam nga ñoom Khady Ba ñoom Adou ñoom Pape xam nga ñoom Labo ñoom ñëpp ñoom Mobe waaw yëpp maa leen sant bu baax. waaw waaw bis bi waaw ah, maa ngay waaj a xool comme ni may waajee xool yeneen bis rek comme noonu rek waaw ah, ñu ngi si bu baax incha allah xool te gëm na ni xool am incha allah xool comme combat bee passé rek waaw ndam kay. non Aliou yaa man soxla moo ko xam. non man barki seen naa xool man fe fekk ma ko soxla du moom jàmm gan barki seen naa xool man Alioune xool man tegu ma sax sama bët man jàmm gan ku ma soxla ay liis njaago laa ko soxla barki seen naa xool ay Laurent Ndiago. billah mais mais mais booy bi man man doo ma sax jóg man booy yi. a doon maa gën a xotteeku fuuf. billah man ak man ak booy bi sax duñ benn gis nga buñ jàppante barki Serigne Bamba laa naa ko dégg naa ko nag muy muy wax di boobu léegi mais mooy loolu garaawul ñun ñun li nga mën a xool ñun jëf nañu ne ragal. gën a yooyu non moom kooku kooku sama sama commande moom du sama commande du métti. incha allah barki yàlla. jël bu rëy yow sama commande paase xanaa seeraan ko mën a caatu 15. waaw yow yow kii kii day kaa Aliou mi ah. kii man maa xamoon fuuf. barki Sëriñ Bamba xool mën a moom soo xoolal du waaw yow. waaw xaaral ma jàpp nga xam. Mm. ma ngi wàcc si bi xool du bëri xool ay li simple. di di bëri di jël xoolal waaye façon champion bu ne xoolal xoolal man damay mbëkkante ak moom si àll bi barki Sëriñ Bamba xool ñagas de ñagas de meenu boo demee xool nga laaj ko xool jàppante nañ wër na alxuraan kon man man Aliou yaa xool man teg ma sa sama bët barki Sëriñ Bamba man xoola waaye kooku du mbër waaye kooku kooku di comment yee ah, yow kooku gén maa la xool mbër laa mbër kaamil laa barki Sëriñ Bamba xool te buñ jàppante mu xam ne man mbër laa waaw yow comme mercredi incha allah loolu man maa la ko fii Aliou bi bi jàppande bu taxee dëggal boppam mm. man sama commande yu bëri yëpp xool du passé xool ay 30 secondes alxuraan xool te bu taxee dëggal boppam billaay xool ma buddi ko si kaw dóor ko suuf xam nga man Aliou duñ benn sa mbokk yi yow wër ñi ñi ñi man man lu may wax xool ñoom ñoom nañ ko man lu may wax ñi xam nañ ko. mais ñi mais ñi dugg ñu ah, alxuraan Aliou <laughs> booy bi instant suñu suñu dugg sax ma ko gis nga booy ba combat bi taxaw ba léegi xool mosuma koo gis booy si li laay gis si photo rek laa gis mm. waaw xool man maa ngi dégg muy wax naan booy bi xool da nga ko gis si photo ma ne waaw baax na kii kii kii kii métti xool kii man maa ko mën mais baax na xool mais xool barki sëriñ Ba ma xool bi suñu bëkkantee non champion man maa gën a doon champion fuuf xool man man dëkk buun man man dëkk buun waaw ah, bun nga dëkk bun moom am na ay champion bi xool ma si ginnaaw Thier laa nekk Thier Thier bu baax fan yëpp xool ma ñuy teg lu métti ah, Thier kët ay ñoom Ñaa ñoom ñëpp maa maa bu baax ay ñoom Madje ay ñoom Góoru Kumba man maa leen sant bu baax gaa yëpp ay ñoom Paul ay ñoom Bamba kët ñoom ñëpp maa leen bu baax ah, ay ñoom kirigu nag man man maa ngi dégg muy di booba léegi naan kii la soxla kirigu <laughs> la soxla waaw moom loolu waaw yow xool yow Laurent sax yow daf ay ñoo wax tey ko foowee ah. waaw sa Bamba xoolal bu ba. mais ñaata séance ngay a examen. xool man deux séances laay door mais est-ce que xoolal man lii laay door benn laay door. xoolal démb rek ma wax démb xool man maa ngi xool biir koñam démb barki Seydina Mohamed. géej waaye di entraînement démb booy xool dama gis tiit booy mi barki Serigne Bamba xool taf seen gémmiñ <laughs> mais mooy loolu xoolal. <laughs> barki si gis gis ma suur baa xool bis ma bëree barki alxuraan karim xool xool nga nangul ma barki alxuraan eh, aliyaa moom ba nag xool genn maa ne na tiim ko nag xool muy wax rek xool gaari wax ay ay dof xool bu ko wax poti ñaa naan poti loo fii loo dëkk fi dëkk mooy moom bi indee benn ngemu nee mun na si daan waa bu yëpp te incha allah xoolal buun xool man maa gën a nekk xale ikri bi ikri Mansour Mbaye xale bu ndaw laa xool 2005 laa booy bi xool maa xamul fuuf fekk na ma amul xoolal xool ma yàlla ma booy bi daan xale bu ndaw laa xool 2005 te booy bi bis ma ko jàppee buddi ko ba si kaw dóor ko suuf barki alxuraan xool ma ne maa yab de barki alxuraan karim xool ma dañuy sonni si man xool ay kilifa barki alxuraan karim xool dañuy bàyyi seen temps xool di sonni si man xool di ma woo xool barke alxuraan xool ma na war a nekk champion. billaay wallaay taalaay. saa ñaata man xool ma bëri naa xool ma trois combat laa bëri. waaw. booy man man mu waaw. trois victoire. ñu daanu yow. yow ñu dem jël ay tournoi. fii fii dem naa fa ay tournoi bu lu mat sept combat ko combat xool benn benn moo moo si lii barke alxuraan karim vite fait bien fait rek laa xam billaay walaay taala te te bii soit suuf suuf suuf. waaw ah. Ah, baax na waaw. doxal ma sa gars yi ba jour ba kenn lu ñuy waaw xam sant nag tuuti. waaw xam nga xool sama mag ji kii moom xool borom baax la mooy loolu xool sa combat xool ma da si jàpp baax ak gars waaw moom la waaw salaamaaleykum maa ngi leen di nuyu di leen ziar di mu jag ñu nuyu suñu mbër di Douze doo naan ko dafa la woon fa woon rek jàpp daan rek ñun yow la ñu yàpp yow la ñu woolu waa di wax ni anniversaire am ne ko am nga combat mosoo yàpp nag yaa ngi doog a yàpp ñun mosuñoo ñun ñun buddi daan lañ xam te ñu ragaluñu jàmm gën waa jàmm gën dañu xam ne waa bun tamit de ay mbër a fi nekk champion fi nekk de kay kon jeex na ikir Mansour Mbaye amul ragal bu di daan rek la ñu xam ba jour baak jàmm ak salaam incha allah luñ ko yëpp la woon fa woon rek ne ko na dëggal boppam taxaw te xamante ne incha allah ndam di day ñëw waaw. ay seconde lañ koy daan. waaw ah. dañ koo li dañ koo liggéey moo tax ñu koy def bu jour booba incha allah. la ñëw na ba pare mercredi. incha allah ndam di bu lay waaw incha allah siyaar naa la dala siyaar lépp jaamu kay ah ñoo ngi waaj nànk-nànk rek kon niñ ko doon waajee yeneen nii rek confiance bu wóor kay billaahi jàpp daan rek lañu xam ñun fu mu dugg ah jàmm gan loolu du problème booy boobu ñun teguñu ko sax suñ bët non non ah, ah booy boobu yow doy mbër. kooku nga xam ne yow ay Géejamaan lay toogal yow. waaye kooku du champion sa waay kooku du jàmbaar. Ah. bakki yàlla du jàmbaar ah. kooku du mbër. kooku bi nga ko jàppee benn jooy lañ ko jooy caatu 15 moo gën a wopp foofu gis nga keroog ñu ko def benn jooy lañ ko jooy kooku du champion. seen xel dal na bu baax ci non dana baax boo xoolee bu doon combat bee passé ñëwoon nga rek nga xool ko ak léegi nga xam ne changement am na combat bee passé boo xoolee nga xam ne changement am na booy boobu noonu bu ñu ko jàppee dañ koy daan benn jooy rek lañ koy jooy. billaahi. wan géew ñun dugg ñu si géew bi mais suñu xel dal na si moom bu dee ah, problème mu entraînement rek ah, entraînement la. kii ñu muy bëreel ñu muy bëreel si ñoo ko gën ñoo gën a wopp booy bee foofu ay ñagas. mbër baan kee ah, non ñun moom xamuñu lu nekk ah, moom ñu lu nekk si kii lañ xam te kii man gëm naa ne bu arbitre bi sifflé billaay du ma trois secondes mu daan ko booy bi bu na taxaw rek moom na taxaw dëggal boppam hmm. bu arbitre bi sifflé na taxaw rek dëggal boppam ñu daan ko mu dem ñibbi si perpre mu dem ah, waaw yàggatul la kenn incha allah waaw delloo siyaar sant ñu sëñ bi pare nañ ko bu yàgg bu paree tay tay tay tay muy ni ngeen moom ñu bëre ah. waaw ah non dañoo wóolu ku ñu àndal du confiance dañ koo woolu te kii dañ koo yónni di ko taxawaal waru ko sax hmm. waaw. ah combat bi lu mu laaj dañ koy def ah ak doole ñu ngi waaj doole lu ëpp billaahi ah. fii lu fi war a jógee kay kenn mënu koo xam hmm. waaw. mais fii buun la rek. non loolu ñun duñ ko duñ leen ko bañal mais fii ni fii buun la. fii buun la ah. pare nañ ko bu yàgg hmm. waaw. ah gars yi mooy loolu rek la kees mettiwul te te man sa waay soo bëggee dégg-dégg barki yàlla sa waay xol bu naa xamay sax tànk barki sëy di naa xamay xol mun naa xamay tànk xol bëri moom daan ko te te moom nag xol saaru bëri bu jour ba xol naa ko sant xol mu ñëw barki alxuraan xol sama sama sama ñaar loxo yi man ma sañ naa ko teg si ginnaaw fii di bëri moom billaay wallaay taalaay xol mun noo xamaa cabaxal xol mu def xol lu ko man damaa barki sëriñ Bamba maa gën a ës téeméer yoon billaay wallaay. yaa ngi yaa ngi wax de. xool man cabaxal yi muy cabaxal xool na nga na nga cabaxal barke yàlla xool ma yóbbu ko top 5. ah seconde man man yooyu xamoo ko ma arbitre naa pip xool naaw si kawam. du du ma nekk si di nekk fi di raam xool man damay naaw si kawam xool dem jëli ko ñëwaat man man man maa yaa xam te nag man man Alioune sax xoolal waaye. Eh, parce que Serigne yooyu xool waaye yi yambar yooyu. waaw booy boobu xool mooy mu nekk man man daal ca wax yooyu. barke waaye xam nga fii bu si taxaw moom waaw yow waaw yow ñooñu ñoo nekk ay jàmbaar ay tapet ñaa xamay tànk bërëg moom xool bu ñëwee xool ma takk samay loxo barki alxuraan kenn bu bërëg moom te te bu taxee dëggal boppam mu buddu ko ba si kaw dóor ko suuf. Aliou ah, man maa gën a dof foofu. waaw la kenn kay ñoo ñoo na pare. ah gaa ngi si jàpp bu baax barki alxuraan karim ñëpp nag ñoo leen woo ñu ñëw jàppaat bu baax xool gis mel ni bayraan xool ñëw na xool jëndee tigga yu bëri barke alxuraan meññu ko xool noonu may lan nga mën a wax ci waa waaw combat yi nga waaw ko waaw xoolal man première journée bi xool man woon waaw ñoom moom xool dama leen ñaanal xool ñu dem xool ba commencé xool di ñuy xool di ñu tëggal xool ay combat xool ay royal xool ñu leen ñaanal xool di ñu fay ay millions ñuy lii ñoom moom si si kanam si kanam la billaahi waaw ñoom ñoo war saali moom ay jàmbaar lañ barke alxuraan xool ñu ngi jàppale ndaw ñu bu baax billaahi waaw gars yi kay xoolal xool ma leen waar xool ñëwaar xool jàppaati rek xool na gars yi si mel ne xool Moussa waaw xool borom ñaaw bi xool maa bu baax xool day rek day jàpp samay combat billaahi ay ñoom bayran xool jënd nañ tikke yu bëri maye ko ñëpp maa leen woo ay ñoom serpent maa leen woo ñoom alsaan barke yàlla xool ñooñu jàpp si combat bi ñoom ñëpp ku sama maam Samba Ekon kooku moom bu baax kooku chaque jour xool damay woo billahi xool nu ma defal lu nekk xool te nee na sax xool combat bi jàllee xool combat xool arène laa jël incha allah xool te la ma yóbbu yoof la ma yóbbu sall barki alxuraan karim ñëpp maa leen woo ñoom ñoom ñoom ñëpp ñëw jàpp si ñoom serpent ñoom ñëpp gars yi maa leen woo ñoom sirgi mara ñoom yuusu ñoom papkan ñoom ñëpp gars yi na ñëw jàpp ñoom alaaj mbay barki alxuraan xoolal waaw gars yi mooy loolu quoi mais baax na na xool la nekk di wax rek ma li li laa gën a mën xool man ah wax na ba pare moom ah, ah maa war a wax tey man ah, man ma ne waxaat gars yi ñëwaat jàpp si rek xam nga xool combat bi passé xool dañoo am xool ay problème car xool gis lu bëri billaay ñëw jàpp ay père waaw xool combat bi ñoom ñëpp xool ñoom si jàpp bu baax combat bi passé woo na ma xool lu bëri barki alxuraan ñoom ñëpp lu ma dig fii dañoo toog avant comment taxaw mu ne ma xool boo daanee xool ma jëndal ak portable sama portable baaxul sama portable baaxul laa wax ma daanee xool man mën naa fa ñëw du man ma ñëw sa lii su ma daanee si guddi man naa fa ñëw nga jox ma sama kóol soxla ma iPhone nag man mën naa am xool man kóol kóol bu normal waaw sama sama portable bi Pape al mu al mu al mu portable moom ko gars yi gis gis gis ngeen gars yi gis lii moo nekkul yoon lii war ma koo yor soo ma woowee xool pour ma décrocher xool problème lay doon sama jàmbaara ñëpp nag ñoom karamba xool waa buun maa leen woo combat bi nag ki ki di si bëre xool ma laa jox xool man maa ngi koy ñaanal ndam ñoom ñëpp ay ñoom jibi yàlla ñoom ñëpp dañu ñuy bëre ay ñoom zar waaye xool ba nag maa lañ sant bu baax ku si mel suñu ceer nag billaay xool day sonn si ñun ceer man maa lañ sant bu baax ñoom bamba ñoom ñëpp gars yi fa nag xool na ñëw jàpp si combat bi nag incha allah xool ma dem ñëwaat fët fët incha allah du yàgg sax ñoom anta bey ñoom ñëpp maa leen di woo waaw borom crème bi anta bey ñoom ñëpp maa leen di woo ah ah. waaw barke ji na waaw maa maa ngi bu baax ku ñu leen paaraay sama sama xel la gën a moom keroog xool keroog xool laa dem foofu mujj xool mu li ñuy jënd spectacle bëri li dem foofu muy jënd spectacle waaye xoolal neuf mille la ñuy jëndal ñu ñu ne ko du ñoom a ma yëngal weccet waaw loolu laa koy wax ñoom ñëpp maa ngi sant ñoom bural ñëpp billaahi xoolal jigéen waa comme ñoom ñoom bébaara ñoom xuja ñoom Anta Bey ñoom ñëpp maa leen woo bu baax ñu ñëw jàpp si barke alxuraan waaw xool ñoom ñëpp xool man maa leen bu baax xool ñëw rek jàpp si xool ñu luwal may kaar rek xool jàppaat si billet bu baax xool ma dem jëli ko ñëw waaw xool ñoom ñëpp man ñu na ñëw jàpp si combat bi rek gis nga kii xool motuma sax waaw yow kii kii lay mbër Aliyaa mi day jàmbaar Aliyaa daal xool na taxaw arbitre ne pib xool na taxaw dëggal boppam man daal arbitre ne pib xool leen daal na ko bàyyi xel bu arbitre suuf daal xool man maa ngi si kawam barki alxuraan karim xool lépp lu na ma ma jàpp ko naan te booy ne xool ñoom dañuy lu ñu yor xool nañ ko jox sa waay waaw nañ nañ ñëw kaaw ñu xoolal karambaana maa ngi sant bu baax sirigi sama mara mu nee si ginnaaw maa ngi sant bu baax day jàpp si combat bi bu baax xool li ba passé nag fekk fekk ko fi combat bi passé xool mais bi nag xool la waa gën a am problème nag xool na sa waay ñëw na karamba ñëw na gars yi maa ne sant a ñoom yëri maa ñoom aji waaw chaque jour xool damay yéene ay spectateur man dama kaa fàtte woon sax aji man maa ngi sant bu baax gars yi xool damay yéene xool may lekk ba bay suur waaw ah yoruñu kay yoruñu billaahi xool da nga jóge environ doom doom sax loolu lekk gars yi dañ la yéene spectateur da ngay lekk ba fàtte billaahi ñoom anta bey maa ngi sant bu baax bisaab bi waaw gars yi yëpp maa ngi sant ak ñoom xadi wañ xadi na xool dem laa ñëw di ko di ko abbu xaalis xool mu topp ma nag fàtte ma xadi xool may ma xaalis laa la danga danga jàpp si làmb ji waaw ñoom ñëpp gaa yëpp waa buun waa ten ma ñoom pin ñoom bàcc ñoom bamba ñoom baax ñu ñëw jàpp ma waay ma jàpp waay daan bu baax ak ba gaa yi ñëpp ay teew billaahi ñëpp maa leen woo ñoom yërëm maa tamit xol xol ñu ngi jàpp si làmb ji ñoom ñëpp daal nañ nañ ñëw rek xam nga xol lii xol ma jàpp booy bi buddi ko ba si kaw jàpp xolam aca sama gars yi mi ngi noonu tey dóor mbërër tike bi tike bi ñoo ngi koy fàttali ko xaalis bi waaw waaw xool ki tam maa ngi maa ngi sant bu baax xool Aziz man maa sant bu baax Abdou Aziz moom mooy la billaahi xool day sonn si ñun man maa sant bu baax ñoom moobe Abdou Aziz moom billaahi moom moom kenn kenn fayam fii wër na alxuraan karim xool day jàpp si làmb yi ba pare damay loolu xool te borom baax la Abdoulaye Mas man maa la sa jàng xool loo si bëgg yaa xam xool yaa <laughs> yàlla na suñu borom jàppale rek sàlla mooy loolu gars yi maa leen nag bu baax Aliya dama lay buddi kaw kër suuf maa la gën a dof fuuf yi mi ngi noonu li leen indiloon tey jii ñu ngi woon fii bun ñoo jël si Malo Rouge Bordeaux di waajal journée le 15 mai journée jeunesse production waaye gis nga xam comme émission bi jaar na yoon te neex na tamit kon ki ñoo gars yi ngeen di wax ngeen gën di abonné bu baax si chaîne bi te bës ko notification yi ndax suñu dugalee yeneen vidéo yi da ngeen mën ko en direct jërë ngeen jëf